yéen ñi xam-xam itéel ci seen jotaayu kàggu mag ñi di dox ci wàllu astraar ak pajum cosaan ak aada fii ci jàmm ji info point net kon nag bu ko kenn wuti jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi safoo jàmm ji info di leen jaajëfalaat saa su ànd bi ngeen ànd ak suñuy euh, programme di leen jaajëfal tam di leen xamal ni lii di cant ak ngërëmil tam ñel na leen mbokk yi mu mel ni nag tey nag fi ñu dellu si waat nag yaakaar na doot ñu leen ko présenté jëmm ju baax ji ngeen jàkkaar lool yaakaar naa ni ràññi ngeen ko biir réew ak biti réew di El Hadji Mara Cissé El Hadji Modou Cissé eh, waaye nag di leen fàttali nag tey gii eh, ñoo ngi ko fekk ci fii nga xam ni résidence am ci diwaanam ci cosaanam fii ci diwaanu Njaareem ci Jurbel bu ñu waxee El Hadji Mara Cissé xel yi tam day dem ci El Hadji Alla Cissé mi nga xam ni mooy waajuram meññi ko tabarkàlla waaye tamit askan wi itam joxaat ko cër bu mag a mag a mag rawatina fii ci goxam tey ñu fekk si ko waaye nag di leen fàttali nag ci ndakaaru nag mu ngi géej waay en en face lycée Mame Limamou Laye ginnaaw si nag dañuy yëkkati kàddu gi daal di koy jox mu daal di nuyoo mbokku téléspectateurs yi El Hadji Mara Cissé asalaamaaleykum waaleykum asalaam wa rahmatullah ahousubillahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahul qawli subhanaka laa xilma lana illa ma xalamtana mahamadul amin muntaxa nu ngi lay dellu nuyu ak siyaara di nuyu tey siyaara yi fépp xam ne kaddu àgg nafa fa macha allah di ñaan ko xaadati xëy rek fépp foo xam ne kaddu àgg na fa jàng faatixa la jàppandi si alxuraan def ko xaddiya si sallallahu ak bépp néewu jullit boo xam ne ma nga barsàq yàlla gën a yeesal seen jéggal waaye gën a yeesal seen yërmande di si yéene sunuy wayjur ak bépp waajur boo xam ne jiitu na macha allah di ñaan ne wayjur yi fii desandi yàlla di gën di wéral seen cër waaye di gën a euh, guddal seen fan macha allah yàlla na gunge yi gën a yàgg comme ni koy ñaanee macha allah Muhammadul Amin. Hmm. jërëjëf El Hadj Mara Cissé El Hadj Modou Cissé tabarkalla El Hadj Mara mu mel ni nag tey ñu ngi am mbégte lool. Euh, fekk si waat la fi nga xam ne sa cosaan njaareem di jurbel euh, tabarkàlla El Hadj Mara mu mel ni tey bés la boo xam ne bés bu am mbégte la ci ñun waaye yaakaar naa ne si yow la si yow la ëppee tey ñu ñëw fekk la si résidence bi nga xam ne sa kër waaye tamit bu ñu waxee euh, sëriñ Mara Cissé El Hadj Mara Cissé waaye ne moom sëriñ Alla Cissé tey fii ñuy defee jotaay bi lan la la def ak ban yëg-yëg nga ci am. alhamdulilah Mahamadul Amin xanaa mbégte gu yaatu rek mbégte gu yaatu ndax li ni wax barab yàlla dogalee nga fekk fa baax te alhamdulilah eh, nga sañ a wax ñu bëri waxuñu cam loolu ak cant la goo xam ne ñu ngi si sant yàlla bu baax a baax a baax waaye di si sant ñaari waajur yi nga xam ne ñoom ñëpp na nga bar sàq ndax ne nga ko waxee rek nu ngi fii nga xam ne sunu dëkkuwaay la soo gëstoo tuuti gis dëkkuwaayu kilifa gi may alxaaji Alla Cissé loolu yi gën a doonate ak cant Mouhamadul Amin comme jotaay am nañ jotaay si barab bu nekk wala barab yu bëri macha allah waaye saa yu nekkee fii rek mbégte bi day gën a kawe cant gi day gën a yaatu Mahamadul Amin muy lu am solo jërëjëf El Hadj Mara Cissé eh, di ko santaat bu baax a baax a baax El Hadj Mara mu mel ni tam damay ubbi rek bunt boo xam ni amaana sax war nañ ci mën a waxtaan muy ñi nga xamante ni tey bu ñu waxee ni eh, tey ujaaj yi moo xam alaaji yi nga xamante demoon nañ ca màkkatal mu karam eh, tey ku jàkkaarloog sa jëmm ji fekk si waatoon nañ la fii nga xamante yaa ngi ganale doomu aadama yi waaye tamit dem ziyaare ji woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey jamono ji mu mel ni daanaka ñoo ngi tàmbale di si muy jullit yi yan kàddu nga yëkkati rek jëmale leen alhamdulilah di ñaan ñoom ñëpp yàlla def leen xaj gu nu nangu di ñaan kàlla yi ak jàmm macha allah te di ñaan it yàlla bu mu doon benn kumpa jullit macha allah nu la koy ñaanal di ñaan it yàlla yóbbuwaat nu fa macha allah di ñaan it jullit yëpp yàlla may leen sans sunu def seen juróomeelu ponku islam te mooy xajju baytilayil xaram kon nu ngi ñaanal alxaaji yeeg ajaratu yëpp macha allah nu agsi ak jàmm. te ñaanal leen it kaala yi yàgg seen bopp macha allah Mahamadul Amin waaye mbégte bu yaatu la comme ni nga ko waxee rek barab bi lanu si gën a neex bokk na si suur bi nu tàggoo war a dem baytulaayil xaram waaye yàlla dogalaa nu ñibbisiwaat ak jàmm fekkaat fi njaboot geeg wëllëre yi yëpp macha allah Mahamadul Amin. Mhm. jërëjëf Cissé tabarkàlla di ku baax waaye tamit ni ma ko waxee ci dal wi yar wi waaye tamit ci xam gi tabarkàlla El Hadj Mara mu mel ni ñoo ngi dugg si nag ci li nga xamante ni jamono gi muy euh, nawet bi. nawet baa ngi ñëw buñ ko waxee tam eh, baykat yaa ngi toog li nga xamante ni eh, daanaka waajal seen ji daanaka am yaakaar rek ci sunu borom tabaraka wa taala waaye tamit am tolluwaay woo xam ne damay boole question bi maanaam buñ fi tolli tamit dañuy gis du ci bari bari mag ñi daanañ am ay ñaan yoo xam ne daañ ko jëmale ci askan wi ci njaboot gi ngir wàllu kaaraange mm-hmm. alhamdulilah mahamadul amin ndax ne moo koy yàgg di waxee rek suñu borom lépp soldaaram la te nawet a nga soldaaru ngelaw soldaaru ndox mu bari soldaar yi dënnu soldaaru melax lépp fa tabarak la dañ koy faral di gën a jat eh, am si nawet macha allah kon day baax na nu yàgg di koy defee rek ne ñaan mooy ngànnaayu jullit nan koy doon defee rek nuy gën di koy yokk mu bari loo xam ne mag ñi daanan koy def ay tegtal bu ndox njëkkee laal suuf nga xam ne yàlla mën nay def sutura sa diiran nawet bi si mbaaxu borom bi incha allah jàmm rek rek la ñuy dajal si mbaaxu borom bi alhamdulilah. nu koy ñaan yàlla na yàlla may nu nawet ba ànd ak naataange macha allah te nu lépp loo xam ne dénk nañ ko yàlla si xar suuf dogal ko fa yàlla yi naatal ko fa tabarakallah mahamadul amin te lii ayu ngelaw ayu mbënd macha allah ayu dënnu yooyu yëpp yàlla musal si réew mi waaye musal si àddina àddina bi mahamadul amin mhm. muy lu am solo tabarkàlla El Hadji Mara mu mel nag dañuy dugg fi li nga xamante tey fekk si nañ ko yaakaar naa ni eh, jotaay bi yàgg naa ko sàkku ci yow li ko waraloon mooy rendez-vous yi nga xam ni eh, tabarkàlla yaa ngi ko am fii ci diwaanu Njaareem muy ñetti càngaay yi nga xamante ni ñëpp ngi bàbbeeku fépp ci àddina bi waxuma la biir réew waaye àddina bi ñi ñëw di la fekk si ba tax na sa jot lu ci bare bare na mën nañ wax ne muy lu wàllum cosaan ñetti càngaay ñetti siwo sangaay yi nga xamante ni El Mara day baaxaat askan yi nga xam ne ngi jàkkaarloog yow xam njariñ gi dëgg dëgg dëgg alhamdulilah Mouhamadul Amine njariñ li de mooy defaru giiru dundu rek dinaa di wax ne lépp lu nit di yëngatu walla lu nit di sàkku rek na si utaale compte barkel lay barke na yàlla def na ko see defal ndax loo xam ne lu nu jëlee si kilifa gi la yal na yàlla yokk yërmandeem muy alxaji àll Cissé nu daan teg sunu bët tamit kilifa yu bari mu leen ko doon defal fa tabarakallah barke boobu it yàlla seddunu si yàlla seddunu si ba dinaa di wax ne bokk na si lu nu gën a wóolu si lu nu gën a wóolu si buntu ñaan ndax dinay jafe lool Mouhamadul Amin koo xam ne am nga solo tuuti te nu bàyyee la ak sago am solo nag mu ngi commencé si manal sa bopp waaw mënal sa bopp ba nga xam ne lépp loo bëgg def rek yàlla def may na la suturaay nga mën koy def ñaare ku àgg foofu rek du ñàkk am na ñu lay jéemal waaye du ñàkkit am na ñu lay baa jéem di baare am na ñu lay gasal ndëgg sërëx yooyu yëpp nag ñaare danay faral ak càggante wala lu ànd ak euh, bàyyandiku danay waral nit dem ba macha allah fu nu ko fiire jàpp ko fu nu ko gasal kamb mu daanu fa tabarak la lu nu ko sànnit mu dal ba yooyu mën nay indi jafe-jafe yaram yaram boo xam ne macha allah du wér mën nañ indi ku mu xam ne macha allah la doon dox ay taxaw mën na koy indi it fa tabaarakala si problème sentimental ba du mën a nekk kenn wala kenn du ko jublu pour nekk moom yooyu yëpp nag eh, ak eh, yeneen i gàllankoor yoo xam ne gàllankooru eh, rab lay doon nga xam ne bi macha allah dinay tënk nit ba nga xam ne duy mënal boppam lenn day demee benn côté ak yu demee noonu yëpp fa tabaarakala yàlla dafay def sutura. si càngaay yi nga xam ne moom la def fii ñu si bëri dañu ko fi dabo si ndax ni nga koy waxee rek muy loo xam ne fii nu nekk si kër gi danañ fi yendu te yendu ba yëpp macha allah lu nuy luy raxas tënku tënku lay doon su jant sowee macha allah bu jant na boo dem si àll ba sangoo ñetti ndab yoo xam ne benn bi lépp luy tënku tënku si kàttanu borom bi daf koy dindi ñaareel ba ñaareelu ndab bi day doon kiir laay ba nga xam ne si kàttanu yàlla. lépp luy safaan dootu la tënk si kàttanu borom bi ñetteel ba day doon ubbeeku si lépp loo xam ne yaa ngi ko doon sabablu macha allah ñett yooyu yëpp su amee ba pare barab ba nga sangoo woon da nga fexe mu takk su takkee tàkk naa te dootuma fay jooju yow yaa ko yëgal sa bopp macha allah mu mel ni ki li wax mise en suur nga sa bopp ba nga xam ne lépp lépp loo xam ne tënku tënku la woon macha allah gàllankoor la woon pas-pas la woon. Eh, macha allah gàllankooru rab la gàllankooru leneen la lépp lu mu doon si mbaaxu borom bi su tàkkee ba nga gis safara ba bàyyi nga ko si mbaaxu borom bi incha allah mahamadul amin barke boobu nag la nu yàlla la nu si yàlla defal ndax dinaa di wax ne si barke wala saw fa yoxti kara bu ko fatarda boobu nu doon ut si sunu entreprise muy doxaa yàlla defal nañu ko si ba na ñu bëri mm, ngi koy xencu si macha allah ñu si bëree bëri dañ koy xencu yëgal ko keneen mu ñu wax xencu si ko ñooñe yëgal keneen noonu lay demee ba nga xam ne eh, saa yu yàlla dogalee nu nekkandi fi rek danay danay xaw di satire nu koy sant yàlla bu baax nag ndax ni koy waxee toujours rek eh, jamono àddina bi toll nañ foo xam ne ku mucc rek da nga àgg macha allah bu ne woon xéewal yi ma nga cees nga dox jëmi cees jëm cees waa soo muccee si ndëgg sarax yi rek lu mu yàgg-yàgg da nga àgg waaye ñaari ñu si bëri na ngay dox ba mu yàgg mënatunee dem lu koy waral mooy macha allah euh, gasal nañ leen dëgg sarax walla tënk nañ leen ba nga xam ne dootunu mënal lenn seen bopp mooy tax day baax lool jamono bi na ma koy waxee rek nga am faydaay bañ a mel ni xob nga xam ne fu ko ngelaw fekk rek moo ànd ak moom waaye nga am tuuti pois ba nga xam ne macha allah leen du lay man di gàllankoor leen duy man di lay booleeg sayaatin boo wax ne da lay gàllankoor lenn ni duy man di sanc sa dëkkuwaay ba nga xam ne dooy moom dooy moom sa bopp tabaraka la lenn ni du lay gàllankoor ba ñu la yàlla booleel si ay soxnaak doom macha allah seen diggante doo leen yilif na ngeen war a yilifee te loolu lépp xeeti def-def man nay doon sabab ba Muhammadul Amin mhm. mbokk yi muy lu am solo la muy ñetti ndab yi muy wax nii tam muy ñett ndab yu nga xamante ni askan wi eh, ni ma ko waxee tam ko ñëw njaareem itam gis taxawaay bi ni mu koy defee saa su ne waaye tamit muy njariñ gi nga xamante ni eh, ñu ngi koy jëlee fu ne El Hadj Mara mu mel ni ñëw tudd nga ko léegi ci biir wax muy wàllum rab rab nag mu mel ni lu bëri façon la El Mara da ngay dégg ñu naan la rabu sën ñii ne la rabu ndono la eh, rab ak bu mu mënta doon El Mara ndax rab ak li mu mënta doon rek dañ koy faral di teggi fii nga xamante ni ci kër gi alhamdulilah Mahamadul Amin eh, ni ma koy waxee rek ne ñaare danay am ñoo xam ne la seeni maam yoroon la ñooñu ñëw tippoo leen macha allah la ñëw doon mel ni saaru ndono lay doon mooy tax eh, nan ni ma koy faral di waxee ne tàggale ga ñaare yenn saa yi fexe ba du lay not dana koy ëpp jàmm ba nga xam ne du lay mën di gàllankoor saa yu yàlla dogalee ne ah, sa vidéo dafa war a tukki war nga mën a tukki du la gàllankoor ngir tukki ba du am su fekkee war tollu nga si sëy war a mën a ut soxna yi du doon lu lay gàllankoor ba dooy am wettal ka saaka bu fekkee jigéen la war a mën a am jëkkër moom it fa tabaraka la comme noonu du koy téye si muy am sëy eh, ni muy gàllankoore yi ni danay commencé ñaare ba muy nekk si biiru wayjur mooy tax ñaare ngay gis ñoo xam ne eh, sunu gane jamono danañ indi beneen meluwaay boo xam ne du du du euh, neex ñaare macha allah yooyu yëpp na ngir mucc sa yàgg naa di koy wax yàgg naa di koy wax ne nan di euh, naan lu bëri macha allah nan di sangu it nan di suuru ngir lépp loo xam ne euh, bokkul si doomu aadama macha allah du mm, yàlla dinu si gën di musal fa tabarakala mahamadul amin wàllu rab moom boo dee gis léegi tout tànk yu bëree bëree bëri rab dugg na leen ba euh, seeni xel daanaka xelu bàyyi ma lay doon mm-hmm. du nuy xam dara mën nga leen a wax dara léegi balay ñaari minit boo leen yónni woon bitig ba bala nuy àgg mën na noo fàtte <laughs> lan nga leen yónni mm-hmm. du nuy dañuy jaxasoo seeni nelaw du du du tranquille fa tabarakallah du ñuy mën a jàpp leen fa tabarakallah ñaare yooyu yëpp danay doon sabab mm, dana doon màndargay ñoo xam ne bii rab da leen jàpp di mooy tax nan di gën di koy teelee eh, defaru gi macha allah su demee bàgg fenn fii ni ma koy waxee ngir di moom sa bopp am na ay yoon yoo xam ne su ko ni jëfandikoo dinay moom boppam ba lenn sayaatin du du koy du koy not si benn fànn fi tabaraka la te loolu bëri na ay yoon yoo xam ne yàgg nañ koy partagé yoo xam ne duy génn alxuraan yàgg naay xirta ñu bari si suratul kahfi bind ko si bind ko ba pare sangoo ko si ndab lu yees yoon bu baax la ngir mucc si lépp loo xam ne xeetu rab la jéem a xam sa chiffre nga bind ayatul kursi so àggee si wala yow doxu xif nga baamu ko lim boobu yoon bu am solo la ngir mucc si gàllankooru rab yi fi tabaarakala Muhammadul mhm. muy lu am solo tabarkàlla jërëjëf El Hadj Mara yaakaar naa ni euh, loolu leer na ci wàllu rab nañu teel rek jugo waaye itam di fagado ci ndaw ñi euh, El Hadj Mara ñu ñëw ci euh, mën nañu wax ni jinne téere jinne yi nga xamante ni wax nañ ko fi téere poche. bi nga xam ne tamit waxaat nañ ko fi muy ñaari teere yi nga xam ne ñu si bëri bëri jàpp nañ bu ñu waxee téere jinne bi rek daanaka ëmbaale nekk waaye dañu gis ni téere post tamit amaat beneen njariñ boo xam ne moo koy dox ci askan wi. alhamdulilah mën nañ ko waxee ne bii dalay sàmm guddi bii di lay sàmm bëccëg eh, ndax bu dee téere jinne bi ñi nga xam ne dañuy faral di def ay cauchemar seen nelaw duy neex toujours day am lu leen di gàllankoor guddi yi ñaare noo koy def seen ngegenaay ba nga xam ne lenn sayaatin du leen di jege macha allah su dee téere poos bi nag macha allah day doon càmm da lay sàmm su saa yoo nekkee si yoon boo nekkee si mbedd liggéeyukaay ak fooy man di nekk rek fi tabarakallah looy def sa poos la wala sa poset ba nga xam ne leen du lay mën a détourner yenn saa yi da ngay faral di dégg ba ma ko nuyoo wala ba mu waxee ma tontu ko xamatuma fan laa nekk yooyu yëpp nag macha allah soo ko amee yàlla da lay dimbale ba nga xam ne lenn safaan du sànni lenn si mbedd ba mu dal fa tabarak la te mbedd léegi Mouhamadul Amin fu si bëri essence la nu may waxe nag essence nag fu mu nekk bu fa almet jagee rek mar tali taali mooy tax day baax lool ni ni yàgg di koy waxee ku si génn muy génnaaleeg laab waaye muy musulit fa tabarak la ba lenn seyatin wala lenn loo xam ne doon koo sànni dañ koo sànni te amul borom. Eh, nga bañ a woyof ba loolu ñëw di dal sa kaw. yaakaar na amati na solo jërëjëf El Hadj Mara damay ñëw nag ci wax nga ko léegi. maanaam ngelawu siyaatin da ngay dégg ñu ne la ngelaw daf ko dugg te bu demee l'hôpital dina xool yaram bi ñu xool ba ñu consulter di ñu gis dara waaye giir na mi ni moom am na luy dox ci yaram bi bu ngoon jotee dootul am jàmm yaram bi day diis buñ ko xoolee itam mën nañu wax ngelaw siyaatin El Mara ngelaw bu la xas bu dugg ndax génnee ko dina yomb. alhamdulilah wallaay ndax mbindeef la boo xam ne bu nee si yaram lu mu gën a yàgg rek gën yaram gën di doy waar yenn saa nag mën nay nelawandi macha allah borom am jàmm tuuti waaye saa yu yeewoo rek fa tabarakallah yaramam yënguwaat ñaare na comme seen pouvoir bu jant sowee la ñuy gën di am doole mooy waral ñaare fuy timis jàllee rek yaram yu si bëri de xaw di fasu fa tabarakallah ba fajar di jàllaat yooyu nag eh, xeeti tawat la yoo xam ne machine mën na koy bañ a gis te borom dana xam ne yaa quelque chose mooy tax am na yoon yoo xam ne yàlla dimbale nañu si macha allah nu ngi koy jëflante ñu bëri te nu ngi si gis njariñ si loo xam ne ay ayaat la yoo xam ne daf koy naan boole ko reenu xam-xam lépp luy ngelaw fa tabarakala suy tuur ndox danay yëg ne am na lu bokkul si moom loo xam ne ma mu ngi génn mu ngi génn si ma tabarakallah am na yoon yoo xam ne biit yu nuy togg la eh, di koy xeewlu nga xam ne lépp luy tawat bu ñuul it yàlla def ko say da koy saafara si mbaaxu borom bi ak xeetu tawat yu demee noonu am na si yoon yoo xam ne bii ndox bu bëri ngay def rek di naan ak sam-sam fa tabarakallah lépp luy lu ñuul lu ne si yaram noonu la leeru arxuraan boobu di koy poussé ba lépp mujj di set dinaa di wax ne mën nay toll lu xaw a am solo ngay jëfandikoy ñaan doolem di wàññiku doolem di wàññiku ba mu seey ba mu set wecc fu tabarakallah ñaare it mën ngay def benn yoon mu xaw a nelaw rek nga ne alhamdulilah su yeewuwaatee rek dangay ngay na sa yaram yaa quelque chose mooy tax yoon la yoo xam ne bii tawat la yoo xam ne léegi yaatu na lool lool lool mooy ñoo xam ne munu leen lay wax ne lii la te ñoom xam na ne wéru nu fi loolu nag yàgg na am na yoon yoo xam ne doon nañ ko si maye te mooy ñeent fukki fatiha ak benn ëpp nay xeet ku si julli fajar rek soo ko mënee nga ut ndox jàng ñeent fukki fatiha ak benn mhm. ëf si ndox ba naan ba màndi bu la soobee nga dolli si ndox yendoo di koy naan waaye fi lay yoon la boo xam ne ku koy jëfandikoo lépp luy xeetu tawat bu ñuul bu nekk si yaram dootul am tànk kanam foto tabarakallah juróom-ñaari wa samay wa taarix yi baax na ku ko mën a bind lu baax na di koy naan booy naan naan ba man di waaye soo mënee am loo xam ne danga koy def eh, dugub danga koy lekkale ak dugub di si xew lu ba ñàq fa tabarakallah moom it yoon la boo xam ne mën na doon si faaw si lépp loo xam ne tawat bu ñuul la eh, tawatu ngelaw la fa tabarakallah niki Crafil nga xam ne yoon bu bëri kéemaan la ñaan bu bëri kéemaan nga xam ne eh, téere bi am na si boutique Wadduha yi moom it képp ku yàlla dogal nga amee ko bind ga dinaan naan baax na jàng gay di of si ndox di naan it fi tabarak la baax na Crafil lépp luy xeetu tawat bu ñuul yàlla mën na la ko saafaral waaye yooyu yëpp su jàppandiwul am nañ ay boutique te bàyyi nañ fa ay garab yoo xam ne dañ ko tuddee woyofal yaram nga xam ne arxuraan la fa tabarakallah ki ko amee moo koy defar bu ko defaree ba pare lii lii lu muy naan la si naan naan ba di leneen li lu muy togg ak dugub la di koy xewlu fa tabarakallah lépp luy xeetu tawat bu ñuul boo xam ne macha allah mu ngi si biir yaram loolu daf koy saafara si kàttanu borom bi incha allah. Hmm. muy lu am solo tawar tabarkàlla yaakaar naa ni eh, loolu amati na solo jërëjëf El Hadj Mara Cissé eh, El Hadj Mara damay ñëw ci ñi nga xam ne dañuy faral di amee bopp ñu ngi leen di tuddee borom bopp da koy faral di dégg eh, fu ñu toll rek di jàmbat bopp buy metti lu ne dinañ ko naan nag lépp loo xalaat ne bu ñu leen ko waxee dinañ ko def mais daanaka loolu daf leen di sonal lool borom bopp lan moo koy faral di joxe El Mara. alhamdulilah moom it mm, macha allah tawat la boo xam ne ndeysaan am na sunu mag ju baax. ndono la si moom mu jëlee ko si way juram nga xam ne way juram ak suñu way no bokk ndey baay moom daf koy mocc doon naa koy boole jàmm yàlla yu bëri macha allah yoo xam ne bii def leen koy moccal ba mu deñ muy feebar bu yaatu it boo xam ne bii macha allah comme noonu nga ko waxee dina di jàpp nopp yuy naqari dina man nay indi mm, bët yu lëndëm fi tabarak la waaye mm, tawat la boo xam ne danay saafaro si yoon yooyu ma la wax mooy yoonu mocc waaye yoonu ñaan tamit Mahamadul Amin bu dee feebaru bopp nag boo xam ne bi ñàkkul yaa quelque chose wala ñoo xam ne bi dañuy tàgg seen kaw bopp te muy lu am nag macha allah ñoo xam ne siyaatin mën nay e, noppalu lu bëri seeni kaw bopp loolu ngir mucc si am na téere bopp yoo xam ne bii defar nañu ko mu ngi si waddu xay macha allah fu si waaye dem rek mën na koy am muy loo xam ne du lu diis Ah, bu dee soxna mën na koy musóoru waale bu dee góor it te yor mbaxana mën na koy def si mbaxanaam du du lu diis lool te yàlla dina def sutura ba nga xam ne lenn du tàgg si kaw boppam incha allah. Hmm. El Hadj euh, mu mel nii damay ñëw ci benn euh, laaj rek boo xamante ni tamit ci actualité réew mu ñàkk ñu wax ko maanaam Sénégal ci ginnaaw mois de juin metti woon na trop ginnaaw sax lu dul juin metti woon na ay yëngu-yëngu amoon ci réew mi. waaye nag ñu dem ba nga xamante ni euh, tey njiitu réew mi président Macky Sall doon wax ñu ñu doon wax ni troisième mandat troisième mandat ñu hmm. bëri yaakaar na ni troisième mandat moom da ko waroon xëcc rek ngir ngir indi ko euh, si xelu Sénégalais yu bëri jàppoon loolu waaye nag ñenn ñi nag gëmoon nañ ni warul mën a dem ñi jàpp ni dafa war a dem waaye moom génn na ci boppam xamal ni euh, élection 2024 yi ñu jëm ni moom ci boppam mom teg na ko ci suuf moom du dem El Hadji Mara Cissé mu mel ni jàmm xëcc mbirum jàmm moo tax nee na jàmm jàmmi Sénégal moo ko ëppal li li ne mel ngir dem euh, euh, li nga xam ne moo di troisième mandat noo gisee taxawaay président de la république euh, monsieur Macky Sall ci mbir moomu. alhamdulilah xanaa mbégte gu yaatu rek ndax ni ñuy wax rek nit boo ko soppee da nga koy yéene jàmm macha allah te son excellence président de la république Macky Sall bokk naa si ñi nga xam ne bii man maa ko sopp macha allah kaddu doon lu am solo. may déglu 2012 ni ñu koy wax rek atu léegi dafa gaaw na mu ko leerale woon si ne mandat ñaar la war a doon na mu ko waxee woon si kenn duma dégg si waxi troisième mandat macha allah ba léegi coow li bëri na kalkinu politique yi njort yi ñëpp foogoon nañ ne day laaj troisième candidature macha allah na mu ko waxee si ne sama kaddu dama koy respecté muy loo xam ne képp ku ko bëgg rek macha allah ak da nga sa war a d'accord ak moom waaye da nga ko war a tàccu tamit ndax tabarak la bu dee teraanga yàlla defal na ko ko Mouhamadul Amin eh, at mu ganee jamono ñu bëri ganee nan fa jamono école ya mu doon jàngee bëri na ñu maaselu ñu doon fa jàng ma bëgg a waxee ni jàngul lu kenn jàngul waaye xamul lu kenn xamul te yàlla yëkkati na ko si directeur euh, ministre euh, ministre l' intérieur premier ministre président assemblée président de la république président CEDEAO yooyu yëpp yàlla defal ko ko te bëri lool ñoo xam ne mm, bokk na ak ñoom lépp te amaana directeur sax mësuñu ko dégg mooy jaam day war di sant cant googu nag fu tabaraka Euh, lii mu décision bii mu jël gën gën taaral parcours am fi tabarakallah gën na ko taaral ndax ne nan première fois la élection nar am te ki nga xam ne mooy président sortant du si bokk loolu taarix dootu ko fàtte macha allah te yàgg naa doon koy wax sama benn samay wóllëre ma ne leen Macky Sall mm, président Eh, jugéen bu rafet la fi jóge ndax dafa am ñaan gis nga ñaan ñaan gu nangu Mouhamadul Amin day gunge nit si domaine yëpp day gunge ba nga xam ne danay néew lool nga jóom ndax fa tabarak la ñaan su nangoo lépp loo xam ne mën nay gàkkal mën nay gàkkal sa dund yàlla mën nay def ba loola doo dajeeg loolu macha allah doo def loolu ñaan googu nag fa tabarak moo ko gunge ba lii nga xam ne nee na amoon na si sañ-sañ te bu ko neexoon def ko mu ne damay bàyyi nax maa waxoon maa waxoon ne ñaar lay def loolu fa tabarak la ak e, cant gu yaatu la comme ni ma ko waxee rek keneen kay ñëwit yàlla lay soob nax e, dix-huit million de sénégalais yi kenn mënu koy leen a jiite si ay pexe wala si ay discours wala wala wala lay soob coobare borom bi lay doon fa tabarak la mu dogal ne diw mooy doon njiit si réew mi jaare la koy si xolu nit ñi daj la nu def élection nu jël sa bulletin dugal sa urni yi nu compté ne yaa jiitu ndax boo seetee macha allah ki fi nekk mm, bi nu koy dàq mille 2007 xaw ma dañu ko dàq xaw ma moo démissionné sax assemblée bu mu démissionné woon. avant mandat booba di jeex ilifaat na leen ba pare macha allah jël maire yi Fatick ba mu yoroon jël passeport diplomatique jël yëpp jox leen fan la dem si askan bi askan bi la dem mu soob yàlla it yàlla jaarale ko si askan bi mu doon président mooy tax macha allah keneen ku yàlla dogal lool it noonu la lépp di rafete tey am nañu yaakaar lool si ne lépp day rafet macha allah ndax Sénégal. yàlla baaxe na mag ñoo xam ne ak cant la macha allah cant gu yaaratu lool lool lool ba toujours saa yu nu jubee yenn yi fit yi mën na mën nay dem waaye lépp it day mujj sedd guy fa tabaarakala Mahamadul Amin waaye mbégte gu yaatu la nu am si décision bi macha allah ndax si jëloon beneen it sañ-sañam la waaye coow yeeg manifestation yeeg yeneen ak yeneen mën nay gën a bari man na gën a bëri fi tabarakallah te teraange bi ku ko yàlla defal si at yoo xam ne bi matul trente boo compté amaana bi muy doon directeur ba ni muy doon président bay mandaam di waaj jeex ni lépp lépp amaana euh, ëppul fanweeri at kon ak cant rek la war a doon fi tabarakallah mhm. jërëjëf El Hadj Mara Cissé waxtu bi moo ñu dab yaakaar naa ni dañuy amaat yeneen jotaay waaye léegi ba léegi rek ci biir njaareem lay nekk si Jurbel yaakaar naa ne askan wi tam sa jotaay ak xam-xam gi duñ ci doyal lan ngay tàggatoo. alhamdulilah euh, sant yàlla bu baax rek Mouhamadul Amin si jotaay bi fii si njaareem jaar yeemu wala Jurbel fu tabarakallah euh, ni ma koy waxee rek muy e, barab boo xam ne bi saa yu nu fii toogee rek dañuy mbégte ba day gën di yaatu macha allah. ndax barab la boo xam ne yaa ngi si way wayjur macha allah ndax soo gestoo rek gis leen fa tabarakallah di ñaan yàlla gën a yeesal seen njéggal ak seen yërmande di ñaanit eh, yàlla macha allah mm, gën a barkel seen gannaaw di si sant yàlla bu baax di lay sant eh, di lay sant ndax Dakar ba Jurbel macha allah eh, jegewul te saa ko yàlla dogalee rek def nga yitte nu am jotaay macha allah di lay sant di sant jàmm ji info kàddu yi lépp lu si jub nu sante ko yàlla jalla jalaaluhu lu si safaanook lu si jubu rek nu ngi koy jéggalu di wax alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf El Hadji Mara Cissé ci nuyu yu sell yu tedd yi tabarkal la waaye tam di ko santaat bu baax di ñaan allahu buur subhanahu wa taala du léegi fanam doole ko defal tawféex tey si rek na jaaxa defal ko saxaat daare ni ki barke yonent bi sallallahu mu yàgg lool di jëflanteeg askan wi waaye saa borom bi itam di ko ci defal ndam dama ne dafa doy sëkk bu ñu waxee El Hadji Mara Cissé moom Serigne Alla Cissé yaakaar naa ne ci njaareem ci Jurbel eh, xel yëpp itam yaakaar naa ne xel yëpp day gën a dalaat xam ni itam yoon wi mu teg tànkam itam foofu la waaye tam di leen fàtt rek ci diwaanu Ndakaaru Géejawaay en face lycée Mame Limamou Euh, numéro téléphone bi 77 919 71 00 di ngeen allahu bur bi subhanahu wa taala gën ko taxaw gën ko gënal defal ndam saa su ne waaye tam euh, ñun duñ fi jógee ba léegi rek ñu ngi ak moom fii ci diwaanu Njaareem euh, fas yéene amaat ak moom yeneen jotaay yi nga xam ni gën a yaatal askan wi ndax ñëppay am mbégte ci jotaay bi nga xam ne da koy def ci wàllu xam-xam dal wi yar wi ak teew wi tabarkàlla di leen jox dig daje si wàllu présentation bi seen mbokk taalibi la woon Mouhamadou Lamine Muntaka di leen jox dig